juróom-ñaari bakkan des nañu ci tali bi ci accident ubbi l'observateur ci diiru fukki minute yéenekaay bi nee nañu ci ñu dund démb ci ngoon ñaari accident ca Tataguine ga ca Fatick benn watab 4x4 bu fa mbëkkante ak benn camion citerne ci route nationale numéro 1 bi ba juróomi nit ñàkk ca seen bakkan ak beneen watab 4x4 bu tali bi démb ci dimanche ñaari nit ci beneen accident bu am ca boori Pagga ca Sigicoor ba am yeneen ñaari doomi aadama yu ci ñàkk seen bakkan muy juróom-ñeenti bakkan yu tali jël démb ci réew mi suur soit di ñuy xibaar ne accident yaa ngi ca taata jin ga ca Fatick bilan ba yokku na juróom-ñaari nit yu ñàkk seen bakkan lañ doon wax waaye jëf yi dem na ba yegg ci juróom-ñetti nit yu ca faatu keneen ku faatu ba Les xëye ko moo di waa ji di Assane Gueye ci jide kaw fa la dëkk journal bi nañu ab xaritam bu ñu naan Iba moo ko rey benn xale bu jigéen bu ñu doon jamaale doon ko xëccoo ñoom ñaar moo sooke musiba mi mi la tribune xëy di lool ñu matal añ reer ak ndékki lu toll ci juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeenti junniy doomi aadama ab xiifa ngi leen di yoot ci diggante Matam Kanel ak Ranérou mbirum souveraineté alimentaire ak emploi ci réew mi Sud Quotidien moom la xëy di waxtaane ak professeur Mamadou Moustapha Kassé doyen honoraire bu FASEG ci université Cheikh Anta bu Ndakaaru professeur Kassé nee leen li fekk ñi xam ak ñiy décidé déggoowuñu àndandoo di jëf situation bi du masa changé ñu changé journal dellu ci l'observateur ay dérapage yu kenn dul contrôler salfaañee jéggi na dayo fii ci Sénégal gaa ñi respecté wuñu loi respecté wuñu règlement yéen a bi dañu firndeli moo di keroog gis nañu ab vidéo boo xam ne ci bureau doyen des juges lañ ko filmé ci vidéo ba ñu cee gis Ndeye Khady Ndiaye borom suite boote mu di keroog ba leen doyen des juges wooye moom ak Adji Sarr ngir ab confrontation gis nañu it keroog photob Cheikh Omar Diagne di photo boo xam ne ci biir kaso bu Rebeuss ko photo suuf nañu a ñaari fan kuréel gii di collectif patient en danger journal bi nañu keroog manifesté nañu amal toogaanu ñaxtu bu rëy ca place Obélisque li ñu bëgg moo di yoon def ab liggéeyam ni mu waree ci mbirum dem si yàlla asu l'observateur di ñu xamal ci xëtamu njëkk ne sage femme yi ak seen grève bi ñu doon def juraat na beneen jéyee ca Louga ne benn xale bu jigéen bu ñu naan Penda am ñaar fukki moo amoon li ñu naan hémorragie massive ba jaara ca faatu ndax si ne kay nee nañu takku nañu taxaw ba dëgër ngir bu ñu demee ba yegg ci wote législatif yi ñu jël dëkk bii di Thiès jox ko Macky gañeel ko fa lu rëy te nañ li leen daloon ci élection locale yi ca Thiès jigéen yi Bokk Yaakaar yi ca Thiès nee nañu dootu leen dalati mukk journal bi ñu ci xombal lañu daje woon ak mobilisation bu rëy ci week bi engagé wu fa gàddu xeexu législatif yi ne ñoo koy xeexal Macky Sall benn dëkk ñaari gaar laas Sénégal ak waa yeewu askan wi ñoo ngi nas ak noc ngir taxawal alliance bu mag wutali élection législative yi soleil national mel ne ku naan ñun njaw a ngay dese ndaw xam ci yooyu la élection ne parti politique yi li leen nar jaaxal moo di fan la ñuy jëlee financement ndax ci mennam at nga bëgg cee dem campagne ñaari yoon parti bu ci amul ay moyen financement tëj sa bopp